It's it's on the teddy. I'm cold. I'm the teddy. I'm cold. mu wax ay wax yu xawa doy war parce que ah. nee na won yow nga wax lolu ci ceinture bi mu gagné. Ah. parce que dang ko critiquer nga né ceinture bi ceinture fugg jaay la nee lolu loolu nako ci ñëpp sauf ci Eumeu sen lokay tont wa man bamu ko deglo dembu effet bi dafa ma jaaxal parce que lu tax mu jaaxal moy ga mom suñ signature combat bu njëkk def ak euh, Sen TV def na ma mbeur mu yaru nga ta da ngay ré rek dama bëgg ngay ñangal ngay wax tuti ñu ñu euh, ñu jaay combat bi ma ré ko nopi ñu wat Diourbel mo suñu deuxième signature buñ def ak pap Thialis loto le man waté mu par na man xawma ma ma wax dara pak da ngaa yaru da ngay ré rek mhm. dama bëgg boy ngay dogané dama bëgg ngay tangal nak combat bi neex mhm. mu dem ñew man bo se image boko ko da ngay gis ni man kaf la ko jëlé mhm. parce que tey image bi mi ngi fi nako nit ñu xolat bu baax man dama dama ko dama kaf ak mom mais mom nak té mer na ci kon li ma wax lu mu bëggon ci Sénégal lu mu bëggon wax te mu génn pour jax sama ak Sénégal mais ñëpp xam nañ suma xol man awma kolu ki ñaan ci kenn mbër su ma la daanee ba pare sax lu rafet laay wax ci yow parce que dama xam ne li ma daj ci entraînement daj nga lu ko raw wala nga daj nga li ma daj te yeew di entraînement 5 heures du matin voyage ak combat nu mu soo daanoo du mu ko yéene malgré rek na nag ku ci nekk di nga def loola war ku nekk da ngay bëgg yóbbu sa gox mais wax dëgg yàlla man ba ma déggee mu ak nu mu meree man xaw ma woon dina ko méttee nii d'accord mais wax benen beneen wax tamit mu ne euh, bu ñetti bari goori teug sax ya nga fa yow fu nek ya nga fa da nga la té merci loolu na ci sawara tontu dama am nit yo xamne samay combat samay bëss dañ ci sonu té nit kenn ku xébal bëssam ta man tay lima am lamb momo ma ko may kenn gisuma ci lu ñak fayda lamb mom momo def lima don. doon tay bu drapeau chef l'État damay dem. bu tournoi CEDEAO bu amé damay dem taxaw suma wa dëkk tay suma défé ni ñom lamb ji dina xawa raflé rafle liñ am lamb moñu ko may.

te championnat d'Afrique afrique pour nga bok ci dañ leen di bolé mbeur yépp lutteurs yi gën a aay la ku ci gëna a xarañ la jël te man sama premier dem champion d'Afrique la doon champion d'Afrique man moma gëna mo gëna reuy sax roi des arènes parce que afrique yépp a ñëw ku nekk indi sa lutteur ku nekk di xëc bu bu sa dëkk man ma ñëw demal suma dëkk kérok ba ñuy tëgg une nationale bi sama rongoñ da touru parce que dëkk bu nekk taxaw nga ñu bàq la door ci une nationale man mi ngi ko dooré sama ñu fa dal suma dënn parce que dama xamné tay sénégal waruma ko xagn champion d'Afrique te yalla def na su ma première dem laa ko doon te ba ma njëkkee dem tam dama bokk ñu qualifier dem may félicité bu baax euh, yikini mo roi des arènes donc kay nangul parce que dem na tas fédération nek champion d'Afrique ba pare nek ñëw nek roi des arènes pendant 15 ans Kok naw na ko ci lu mu lu dem mais moom fu mu roi des arènes bi Kok mu ko jëlee dan na ko deux fois du dëgg Tay su ñooñu dawul won kon tay man may nek roi des arènes te mom di jot comprends nga mais waxewuma ton pour iñaane ko lu mu yor parce que limu am ci lambre doyna muy champion d'Afrique mo gëna reuy titre roi des arènes du deug dam ko dam togn rek naa ce centre bi nako delo rookie ce centre bi ci bal bi ngoko jëlé lo pour neexal combat bi la ku gis nu ma waxee sax xamni dam ko wax ak kaf ak ré mais bu ma ko seetaan naa ko démb moo ko erreur ma japp parce que mom mi ngi jël ay xas di xaste te man xasuma ko man macha allah làmb amul luma ma ñé dooma doomu du dëgg parce que bëri 115 millions bëri ay 100 millions 100 millions 100 millions kon tay ba paré tam aussi lu ci mbeur di am rek macha allah alhamdulilah maa ngi sant bu baax du dëgg ba paré tam aussi fep fu ma dem dama koy wàccee lu dama koy wàccee mooy fépp fu ma dem public bi dañ may nangul alhamdulilah alamin làmb nag moo ñu boole ko allez-y waxal. mu mel ni lim wax man du dëgg yàlla man moom li mu wax damaa dee par di dox parce que su ma xale fu ma jaar la dama commencé si zéro sama xol dafa toj dama jaar fu métti moo tax pour dara métti ma yombul. du dëgg mënatuma am lu ma métti suma àdduna noonu. mais moom euh. gëm na ne yow roi bi yow mënoo ko jël ci moom. non moom mi ngi soog am combat. bu ma jee. mu ngi soog am combat parce que dégg naa ci ay waxam mu ne sama adversaire lu mu koy conseillé mooy mu entraîné bu baax parce que bëri na ci ay mbër yi wax mais lënd ba xaar ndax dina wax man dinaa wax lundi wax mardi wax mercredi wax jeudi wax vendredi sa wax dimanche. incha allah am na Bombardier moom am na combat bu baax bu rëy na entraîné bu baax. Mhm. combat bi lii nii du yomb. Mhm. moroomam yu ko yu ko yor yëpp dañ ma moytu moo tax moom mu jot si mais suñu ma moytuwul woon ci jot. Mhm. ma maa njëkk a daje ñoom. mais Bombardier ni mu toll xool ko jàkkaarloog moom ñeme ko yombul ndax dafa. non loolu dara xam nga Sénégal ku réy ñu ne danga am doole effet bu du foofu. Mm-hmm. man ci ay luur laa jàngee bëri nekk tout tànk mm-hmm. di bëri ñoo xam ne ku ci nekk mënoon ub làmb mm-hmm. ku ci nekk mënoon nekk Roi des Arènes man si ñooñ laa jàngee bëri sama yax dafa teel a foq ci ñooñu. doonoo sax problème combat bi fu ma tëdd damay nelaw. dama koy dégg mën a du ci xeex lay dama ragal du ci xeex lu may moytu du ci bëri la may moytu. amul lu ma di ci doole mais loolu mu wax yëpp loolu la ragal ci man li boo ko boolee da ko ragal ci man waaw man amuma lu may sóor ci moom te jour combat bi dina xam ne am na combat bu sérieux mu mel ne tamit euh, euh, mbër bu amee combat comme genre combat yi day laaxatu la ci gën a bëri. Hmm. mais ëmb dañ la gis ngay feeñ fu ne euh, fu ne nga dem fa lan la wóolu sa bopp la wala lum la. non du question wóolu sa bopp xam nga benn ku ci mel ni Abdou Karim Sall suma nit la ku ci mel ni Matar Ba kooku suma frère la du dëgg. Mhm. Tyson 2 ku ne xam na ne suma leet naa la deuxième fois bi tam aussi man booy bu am combat ci man même bu fekkee petit combat picc bu gën a ndaw su ba amee ci écrit bu combat su ma amee temps dafa ma dara damay ñëw parce que samay combat damay gis dañuy sonnee ci man te dañoo bàyyi écrit yëpp ñëw suma écrit mhm. kon dèjà tam nit koo xeebal bésam rek moom mu xeebal sa bés kon ko mën a waxee. deuxième fois combat bi jàpp nañ ko depuis boobu léegi amuñu date. Mhm. légalisé guñu combat au niveau du mhm. xamaguñ ci guddi lañ nekk wala ci bëccëg lañu nekk. Mhm. mais su fekkoon tey dafa leer ni tey date sàngam la mu wóor ñu su boobaa dina nit ñi sax nañu am compréhension bi. que ni tey xam nga combat bi jege na wala jàpp nañ date. te boo xam ne li mu def trois ans amaguñ ci lu wóor ba léegi kon lu def lu dul ànd ak dal rek quoi. mais nag aussi. maa ngi lekk bu baax maa ngi nelaw bu baax combat bi teewu maa nelaw komba bi laa gën a am xel mu dal ci sa bépp sama bépp combat. Mhm. sérieusement nag waxuma ko pour wax lu neex sama supporter wala dara déedéet. Mhm. waaw dama ci am xel mu dal bu baax a baax a baax. mais mu mel ne euh, dañoo gis ne da nga wàññi sa poids par rapport ak ki ngay bëreel. absolument c'est vrai parce que liggéey bu métti moo ma jàpp ku ne xam ne nii liggéey bu métti dëgg dangay ngay dégraissé mhm. wu ñu soxla ci combat bi mooy athlète. waaw force brute doole ju wóor bu nekk ci biir bu dëgër. waaw lañ soxla ci combat bi mais soxlawuñu ay yenn maas yi. waaw d'accord euh, mën uh-huh. weesoo saison bii nii di nga nangu bëriwaat. non non ku ne xam na ni le 28 juillet lañ signé ak ñoom te bu weesoo le 28 juillet bon maanaam contrat amatu fa te dootuñu négocier wala ñuy waxtaan parce que vraiment tam aussi ñu ngi am ñu ngi tardé ñun mbër yi. ñu ngi tardé mii man muy sama adversaire ñu ngi tardé bu baax a baax. waaw kon combat bi juillet rek lañ jàpp nañu ko bëri te tamit aussi am naa confiance ci promoteur bu ko que ni warul am problème boobu. je pense que bon xëy na charge yi ñoo xaw bëri ci moom wala mu nekk ci bés waajal bés bu rëy parce que bés bi tam dafa rëy. dañ koy comprendre mais wax ñu tam aussi du am parce que am nañ confiance ci moom te xam naa ni jàmbaar la. d'accord euh, ban message ngay lancer sa adversaire ak wax jeeg. waaye non na bàyyi mer bay bokk golo gi jee <laughs> bàyyi golo gi ngay bokk man waxee moo ko pour dama la soxore Rocky mi nga daan xam nga d'accord daan nga Rocky mais maag Rocky bokkuñu te tamit aussi bu fekkee dala métti maa ngi lay félicité xam nga ci victoire bi nga am ci ci Rocky xam nga ci ci morceau faberkaay bi nga bi nga. <laughs> <laughs> xam nga ma xaw ma sa xol dafa xat sa xol dafa ndaw quoi xam nga. Eh, mais xam nga ba damay foog yow rek bul mer boo gisee ni may waxee sax xam nga war nga xam ni Eumeu Sène dafay farce xam nga dama lay tooñ parce que da nga bu mu ëpp fu la gis da ngay ree moo tax du ma la mën wax dara mais sama seen da ngay ñëw ñu jaay combat ñu tàngal del wax mais wax naa mer yaa ngi may jaxas ak Sénégal te man ku gis nu ma waxee ak reetaan kaf yu ma dem xam ne may kaf ak yow mais tam aussi bon ngi mais combat la combat du yomb dafa war xam nga loolu teewu tamit suñ combat dafa war métti waaw malgré suñ combat du yomb xam nga nu ma lay xoolee nii war nga xam ni combat bi du yomb lu ma soxla la te incha allah naa ko kaaloo ci kàttanu yàlla combat bu métti nga am na na nga entraîné bu baax na nga job bu baax te xam ne luy rëkki du ëmma seen waaw luy rëkki du ëmma seen ma ngi lay ñaanal nag xam nga koor jàmm di baalu ak ñëpp ah di baal ak ñëpp tamit di ñaan yàlla ñu yàlla boole jégal yàlla jégal ñu suñuy bakkaar koor gi ñu dugg nii yàlla def ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla def ñu génn ci alhamdulilah rabbi alamin yàlla nangul suñu koor kilifa diine yi fi nekk ak kilifa aada yi fi nekk yàlla suñu borom may leen ñu yàgg fi te wér